kër faykan local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko. drapeau Gaston Mbengue la Don King de la lutte sénégalaise tabaski fambooj mi ci dagana mbokk yi kan moo ko def Baba Diaw borom cam production ni cadeau de Noël laa leen andil soq moo koy bëree ak Jackson mu war a nekk lamb dër bi lamb der waaye lamb jàmbaar beneen combat ba ca topp mbokk yi cam production ni Serigne Ndiaye numéro 2 l'espoir de Fass laay jël daal di koy jox bébé Saloum mi trompé ndaw yu bari waaye komba bi Sénégal Ndiaye yëpp di xaar diggante saaf yi bu Thiès ak Pathé ak Boule de Zer Caatu Waalo fa ak Valdo Mbañi Kayre jàkkaarloo fa ak Bayma Ndiaye Karbala jàkkaarloo fa ak Lastander Ngala Déranger dina fa jàkkaarloo ak Ñaq 2 Albarka Kayre jàkkaarloo fa ak Aliou Fat Fat Cikiri Caacoo jàkkaarloo fa ak Boy Notaire ci Cam Production ay grand combat rek lañu àndi lii nag mooy cadeau de Noël bi gën a neex ci at bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaare ki ngeen jàkkaar lool mooy Zarko borom Grand Yoff borom Ndakaaru. le fou du village. le fouri. le Ndakaaru le mu bëri démb waneeti boppam gannaaw bi nga xamante ne def na 5 ans wala 4 ans Espagne ñibbisi boobu ak léegi muy def ay jaloore daan mbay guy gi daan aada Fass bàyyi ma njoon démb nag mu teg ci jën kayre day des Ndakaaru wala dafa des. loolu yëpp dinañ ko waxtaanee ak moom waxtaan ak moom tamit ci combat bi koy xaar le 4 février digganteem ak ñaabu ndaw Zarko ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare di la félicité bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi. waaw la Lamine Bara Moussa Lamine ñu ngi lay fay naa bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi suñu ñaari waajur di ne jërëjëfe Thierno jëfe maam borom daaru jërëjëfe borom Chikori jërëjëfe Babul laa Babul Janaat di sant l' ensemble zone 7B de Grand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 pour dox ci kaw adversaire bi loolu stratégie du combat la mais ni nga bëree la ñu bëgg nga wax ñu ko d'abord. waaw di sant aussi Ibra Seck ah DG DG carrière DG carrière ñu ngi koy sant euh, xam bu baax a baax ak euh, euh, Ousmane Ousmane borom Koseer ñu ngi koy sant bu baax a baax di kontaan ci ñëpp ñoo xamante ni jàpp nañ ci combat bi ñëpp madame Ba xam nga ñu ngi kontaan bu baax a baax ci moom ci taxawaay bi xam nga ñëpp bàyyiwuñ kenn grand Bella. Bella bu Grand Yoff ñuy kontaan ci moom bu baax a baax ñi jàpp ci combat bi yëpp ak ñi ci jàppul ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi ci jàpp ak ñi ci jàppul ñëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm ñi ngi sant maire Madiop malgré bañoon nañu jox stade bi mais ñu ngi koy sant di sant Boubacar kamara di sant xalifa sàll di sant Cheikh Bakhoum ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bàyyiwuñu kenn mais euh, comment même i Dramé sax ñu ngi koy sant du Yaama ñu ngi koy sant comprendre nga même eh, mais DG eh, Ibra eh, Ibra Ba Ibra Seck mm-hmm. DG Ibra Seck borom drapeau moom ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di kontaan bu baax a baax ci taxawaayam parce que lamin ah. daf ñu defal lu rëy mm-hmm. comprendre nga dañuy bëre mu jëndal ñu plus de sept blocs ñoo may ñu ko te moom man ak moom ñu ngi soog a xamante mm-hmm. parrain lañ ko def sama làmb ñu xamante am na ñu mu yàgg xam musuñ ma defal loolu moom bu ma ko defalee foog ma wax ko ko ah Ibrahima seek maa lay sant bu baax baax ti la gërëm ñu loolu lañ man Zarko boog loolu laa bëgg ci ñu may jàppale ñu jëndal ma ay billets ñu jox population de Grand Yoff ñu ñu dem seetaan yi waaye combat bi man na laa bëree sax man dama kaa fàtte de billaay man xaw ma sax nu ma doon def noonu si si làmb ji man daal ba ñëwoon pour daan waa ji rek nu mu daanoo baax na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 ba léegi nii maa ko daan. <laughs> am mm. tey kon bu ma la déggee nii nga waxee làmb doxatul seen diggante. non mën na nekk kooku promoteur bu ñëw fii suñu kër pour tëgg ko sax dama lay taal. pour tëgg mën a. yaa ko fa am de revanche soxlawuma ko. araamal naa ko. araamal nga lool ci wax dëgg yàlla. lan moo xewaat ci diggante bi ginnaaw bi mu la daanee. nan bi ma kan daane. bi la bul ko waxaat sama kanam Siteu maa ko daan.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 comprendre nga. mu reconnaissant quoi maanaam moom toppee wu Europe di ma woo naan ma ñëw làmb mun na la fay. ma ñëw mu toog di seetaan. macha allah lépp lu mu xam wala lu mu eh, lu mu am mi ngi koy partagé ak man. ci conseil ci ci ci ci ci ci maanaam ci àddina daal. Mhm. ok dañuy ñëw ci Zarko bi nga dugg see ci stade bi. Mhm. maanaam tranquillité gi nga nekk si biir géew bi. Mhm. ak maanaam tey dañu dégg ñu ne Zarko.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 te man maay borom ndakaaru man la borom yàq jëf nguy salaat ak ngot. yàq jëf nguy salaat ak ndakaaru moom giree ko moom <laughs> ay nouveau neewaay wax ay paa yu màgg. Ah, ah, ah, ndakaaru kay sañu ko bay eh, Gris Bordeaux ko moom. Hmm? sañu ko bay Gris amul amul titre amul eh, Mbaaw. waaw mbir naa la dëkk. Eh, dafa loué. locataire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 non mais ñun defuñ defuñ dara sax lu dul làmb Lamine ñun defuñ lu dul làmb de làmb kese lañ def ñun liñ def sax tane na si yow dem nañ fi stade seetaan bala Gaye mu xotti fii benn mm-hmm. kanamu Moussa Gningue bu ma bu fas jam ko ba xet mu génn ñëpp di ko gis. Thierno Gaye mm-hmm. ñun defuñ dara Lamine ci làmb Lamine làmb la fa xew fa lay des. Mm-hmm. ku bañ taq rek bul dem làmb.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 bu dul Baye Mandione ñetti ñi nga daan ñëpp yaa leen mag muy mbéy guy gi Ada ak Diène Kaïré mooy sa secret ba boo ñëwee dañuy xam ni Zarko mii moo ëpp doole ay adversaire maa mën doole maa gën a féetee paa xale bu ma la ah kele mooy secret bi bi lan la. teel a yeewu. teel teel a yeewu bala lu liggéey di may Lamine duñ ko ñaan góor.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 waaye waxuma sax démb démb mën nañ ko bàyyi dem directement ci la lay xaar le 4 février. mais loolu loolu si combat bi ba tey. mais saw ay nee na temps bi de. nañu avancé nañu avancé rek. am nga adversaire muy Niang bu Ndaw pour le 4 février. foo koy waaj mën naa Lamine man bu ma soñoon moom combat boobu moom mooy xaaral ñu ñaan promoteur bi rek. mu jéem a xoolal ay kii yooyu noonu nu mu tuddati non pas la la guerre mu xooloo ma rëg rëg ak kii. ñuy bëri nu ñu tudd Reug Reug bombardier promoteur moom buñ ko mënoon ñaan ba mu defal ñu loolu. moo gën quoi non mun na ko lépp waxtaan la. ah lépp waxtaan yow avance ñaar bu na nga jël. waaw d' accord mais gis nga xam boobu nag xam nga waa nag bu soxlawee du déglu de. Ah, <laughs> jàmbaar ji ah. parce que amul ku ko jàppale. amul ku ko jàppale. kenn jàppale ko ñëpp dañuy toog seetaan ko. muy dem ak jàmbaaram ak li muy jël ci làmb Lamine man làmb damay bëri maanaam boog man damay bëri ba pare du ma du ma yor sa xaalis parce que liñ may jox lépp dama koy defaat ci làmb ji parce que la néew néew jàppale comprendre nga mais terewul chaque jour dañuy dem ak suñu ngor comprendre nga du ñu wax kenn nag jàppale wuñu non non. mais moom kenn ku ne xam na ne moom professionnel la moom Zarko. Mm. parce que ñii muy bëreel ñëpp moo leen jiitu ci làmb. moo leen gën a miin contrat am na droit dem jëli beneen combat mais adversaire bi nga xam moom la war a bëreel pour 4 février am nga droit jëli ñaari avance bu la neexee jël rët bu la neexee jël bombardier bu la neexee jël Lac de Guiers mais le 4 février moom doo ko échappé sa diggante ak Niang bu Ndaw comme ni nga def. non loolu yëpp loolu yëpp waxtaan la rek loolu yëpp waxtaan la mun mun nañu mun nañ si waxtaan ak promoteur bi mun nañu may accord defal ñu loolu utul ñu beneen adversaire. lan lan lan moo tax bëgg a man nga wut beneen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 samay supporters yëpp koo dégg dañ la loolu la lay wax même wax bu ndaw moom li laa war a sóoli dana ñu avance bi. mais mais Lamine comme avance dugg na aussi yàlla tere tereeti est-ce que yoon mënu ci am comme avance. non yoon mënu ci lu demul fële CNG yoon mënu ci am. non xam nga Modou Anta problème bi mooy problème bi mooy jël avance la. Eh, ci yow yoon mën na laa mu ngi fii de. non loolu kay ñaari avance mais su boobaa Zarko su boobaa est-ce que nekk wor. non du wor.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 nii man damay jël damay yóbbu kër ga. xanaa changement bi nga gis ci booy man ragaluma ragaluma bu yàlla bind. moom na tol nu ko neex jaaxaluma jaaxaluma mais xam nga lan moo tax. cest dire eh, eh, nuñ koy wax de kër gi dëgëroon rek ci ntàkkut yàlla def loolu ñëw ñu jël ko rek def ko ci biir. mais eh, promoteur bi ci moom muy makan dañ koy ñaan rek man Zarko dama koy ñaan. forcé wu ma xëccoo wu ma barre ma su ma mënee utal rëg-rëg bombardier moom mooy moom mooy gën a moom mooy gën a. question mooy wax ko léegi ci écrit bu mag nga jógee muy Rock Énergie. Hmm. nga ne euh, am fa xam-xam bu bëri.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 moom bu na ñëw rek taxaw si si digg géew bi. kese kese kese kese kese laa koy ñaan. ñaar bëgguma leneen moom na tax ngemb rek taxaw si digg géew bi rek nice. booy ñaam Modou Lo booy ñaam Modou Lo nañ si ñaatir de booy ñaam Modou Lo booy ñaam na Modou de. daan. ah parce que moom jëli nañ ko la mu ñaanal <laughs> du bëri ji nga am yaakaar wala Zarko mu koy veer rek ngay bind. ba leneen neex na rek mais lëndëm lëndëm bukki far bëy yee du bëy bu du bëyu kenn Modou Lo du bëyu kenn ñaari la bëgg yee doy daw foofu ngay ah. jaare doy daw mais technique daw boo ñaa ñi mën naa dawal Modou Lo waaw mi ñu tiim xam ko yow gisoo seen signature maa ngi gis ñuy de mu dafa xàcc de mu daw taxaw fële tëb ñaari <laughs> baax ah, daw kay amul daw daa am non de jab góos la koy def taj day toog. mais techniquement ci combat bi mën nga bëre ñoom ñaar mën nañu bëre. non saa li ma la wax noonu moom li ma la wax noonu moom laa lay wax waxaat xam nga waxoon naa ko bu booy ñaar daanul modloo. Hmm? bëre booy ñaar. daanul ñi mu daan nag. non bu du mot yow modloo la ñu wax roi des arènes the king mujjee daan ñaar yoon nga. yee yow booy ñaar màgget la daan.